jaykatu chapelet yi sondeel yi ak livre de prière yi ñoo ngi gis seen bopp ci temps de carême gi ñu nekk ci église Sacré-Cœur rue Malenfant Kéli Bassène di ñu ko xamal mois de la de carême waaw la gars di gën a jënd que yeneen mois yi man su ma seetluwee euh, mois boobu la gaay la la jaay bi di gën a dox waaw parce que gars yi dañuy jënd chapelet jënd livre jënd ay bougie yi la ñuy gën a jënd euh, ak ki euh, chapelet yi tam day dem livre yi tamit day dem mais ça dépend gars yi mun nañ ko jënd mun nañ ko bañ a jënd mais chapelet ak yi moom mooy gën a dem. def na léegi juróomi at. Brigitte Sagna nekk jaaykat ca cathédrale Notre-Dame des Victoires bu Ndakaaru moom nag lu mu gis mooy jaayu daaw moo gën a neex ren ji avant la ñu doon gën a jënd ci temps carême mais avant temps carême gars yi dañuy jënd ay chapelet moo tax nag carême bu jotee aussi bougie la ñuy gën a jënd parce que koo gis am na chapelet am xam nga ñu ko dul am daal léegi bareetul vraiment c'est à féliciter aussi parce que xaaratuñu ba carême rek ñu joor a jënd ay chapelet instant bi ñu nekk nii xaalis amul ci dëkk bi donc vraiment njaay bi dafa wàññeeku bouche daal xam na gars dañ koy jënd pour taar. ñu nekk ci paroisse yu bëri yi nekk fii ci Sénégal jaaykatu objet de piété yi dañuy dimbali fidèles yi ci seeni ñaan ndax objet yi ñuy jaay lu ci mel ni sondel chapelet médaille wala livret de prière fidèles yi dañ koy saxloo saay su nekk.